aouzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim asalaamaaleykum mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi dal leen jàmm seen chaîne youtube le Coran et ses ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku ci yéen tey dañeen àndil mbokk yi secret bu am solo lool sax pour képp koo xam ne danga am jafe-jafe wërsëg am jafe-jafe ubbeeku ko xamne da nga umu sa lepp dëgër lo sentu doo jot sa yaakaar bo am mu tass insha allah rabbi bo defé secret bi comme niñ ñu leen koy digalé yalla suñu borom dina safara bo problème insha allah. la laata ñuy tambalé waxtaan bi rek di leen ñaan bu leen faté abonné ci chaîne bi ba ci cloche notification bi bu ko defé vidéo bu ñu tuddu dugal rek ñen bok suñu koy jot yalla yalla fay. wasalaam di leen di fàttaliwaat rek boo leen amee ay laaj bindi leen ko ci commentaire yi boo leen amee aussi ay secret yoo xam da ngeen bëgg ñu partager ko ak yéen ngeen bind ko ci commentaire yi te bu leen fàtte aimer vidéo bi partager ko abonné ci bi daa am solo lool sax ndax moo ñuy may doole yàlla yàlla fay. mbokk yi secret bi jëlee nañ ko fu wóor ne képp ku ko def saxal ko comme nu ñu leen ko digalee. incha allahu rabbi di nga gis ay coppite yu ama am solo ci sa dund incha allah ñu ñëw ci secret bi secret bi nag dangay bind boo mënul bind nga wut ku la ko bindal suurat bi di wa di suurat bi ñuy woowee le soleil maanaam naaj bi suurat 91 danga koy bind juróom-ñaari yoon maanaam sept fois boo paree danga koy jël boole ko ak xorom manam sel nga boole ko ak xorom pole manam xorom pole en français mooy clou de girofle nga koy booleel inshallah allah nga di ko sangoo nga di ko sangoo waaye day ànd ak sarax sarax bi mooy ngay jënd kilo yàpp nag manam viande rouge nga jënd kilo wala ñaari kilo fu sa doole yam rek wala liver fu sa doole yam rek nga jënd yàpp saraxe ko di ko sànko incha allahu rabbi boo umoon di nga ubbeeku sa yaakaar bu doon tas incha allahu lépp loo séntu di nga si jot mbokk yi fee ñu yem ak yan ba beneen vidéo incha allah di leen gërëm bu baax a baax di leen sant di leen wax rek gis nañu yéen ngi abonné ci chaîne bi yéen a ngi amee vidéo yi te yéen ngi partagé si vidéo yi ndax yeneen mbokku jullit si mën see jot yal na leen yàlla suñu borom may gudd fan ak weer ak i xewal yaatoo yaatu incha allah di leen di fàttaliwaat rek boo leen amee ay laaj bind leen ko si commentaire yi boo leen amee ay secret yoo xam ne bëgg ngeen ñu partagé ko ak yéen leen ko si commentaire yi te bu leen fàttee abone si bi aimé vidéo bi partagé ko dafa am solo lool moo ñu may doole yal yàlla suñu borom fayal boppam